Pape a fait trop de jaloux dans la corporation il kii en te disent que mais Pape fan la jaar. Mm-hmm. de on le taxe de tout l'accuse de tous les non am dañ naan la bi muy dawal diw moo ko jëndal Pape fi muy dund nii diw moo ko defal Pape il il mange ci ci il mange cela Ousmane Sonko daf koy jox xaalis mais c'est tout à fait faux Pape vit d'autres chose le fait que muy dem sur l'international di ñëw. mais dafa am leen lu mu lu mu lay indil crédibilité boobu dafa am lu mu lay indil ci wàllu koppar. Mm. et puis il a son bureau. nëbbuwul il est sur une voie passante day ñëw gaara otoom yéeg dugg bureau fa lay toog ba 15 heures ba 20 heures 21 heures mu génn dem làqatuwul ci dara mais tey moi ça me fait mal que Sénégal boo xam la Pape ne pas un bon journaliste Pape n'est pas sérieux Pape dafay màndi Pape dafay def lii Pape euh, am demoon nañ sa benn Pape góor jigéen la. parce que boobu toog nañu bëgg ko gis mu takk jabar mu tëleen mais bu mu nee ba takk jabar ñu ne ah kon du góor jigéen boo gisee Pape yi il lii il prend du poids ñu ne euh, euh, la moo tax ce matin je disais la police ma ne ko ba ma juddoo ba tey man lu may wax daf may wóor ni lii ma wax fi ma ko teg noonu la je n'ai jamais vu Pape lever le coude ànd nañu fu nekk musuma ko gis mu naan bière musuma fekke mu naan bière musuma ko fekke mu màndi maintenant nit nag booy wax da ngay wax sa akulaay taala parce que ëllëg di nga taxaw sa kanamu borom nga nga nga nga delluwaat ci li nga wax te fii nit man pour man nit bu ma la jëwee c'est parce que yaa ma gën man j'estime que ni il fait son travail et je le dis dans mon livre j'ai dit Pape Alé Niang ak Alassane Samba Diop ku leen am si rédaction tu as une bonne rédaction. d'accord mais parce que à eux seuls ils te font l'essentiel du journal maintenant li des nag Sénégal boo fi siiwee itam c'est normal que lu nekk ñu xarab la. gisee nga ak moom ban état d'esprit nga ko fekk ak tamit nu mu jàngatee mbir mi. Ah, Pape daf mën tooñ. Pape parfois daf lay reprendre Moussa Fassi Moustarchidine wala Moustarchida dafa naan la sëñ bi nee nga ne ko dee sëñ bi commencé gul wax yow da nga koy cité mu ne waa kon sëñ Moustapha may wax naan yaa ma ni woon mani la boo ma netteetul ma gis ku ni su boobaa ma ni ko j'ai dit mais yow da woy wala mun ma Youssou Ndour moo ko woy sëñ bi reprendre ka que mm. parfois mu toog ba mu yàgg jóg ni negal ma woon mbay Mbaye Dieye Faye nan lay fecce blocage j'ai dit mais demal yow benn yoon rek nga bokki foofu mm. mu ni non c'est que grand man dama bëgg dama bëgg musique la musique damay déglu Pape et euh, ex xam nga expliquer. Mm-hmm. alors nga ak moom loolu nga xëy un jour on te dit Pape est en prison. Mm-hmm. ça fait mal en fait. parce que euh, ki tëj pap ñi tëj lu Pape ñi nekk sur toute la chaîne ñiy reproché Pape ni dafa def lii dafa def lii ñoom ñëpp bi Pape di toj Sénégal 2002 2003 2004 2005 ba 2010 2012 ils étaient où. ñi si ëpp kenn xamu leen woon bu dee notoriété moo leen ko ëpp bu dee combat citoyen pour son pays pour la république Pape dugal na si loxoom ba mu mat sëkk. effectivement porté na combat yu bëri. tey Idrissa Seck lui doit quelque chose. le président Macky Sall lui doit quelque chose. Mmh. Ousmane Sonko lui doit quelque chose. Khalifa Sall lui doit quelque chose ak ñeneen ak ñeneen. te si ñooñu ñëpp man j'ose le dire man dama gëm ni que ni Pape Khalifa Sall la si gën xaritool donte ni ñu bëri jàpp nañ ñu Ousmane Sonko. non li mu seq ak Khalifa Sall seq ko ak Ousmane Sonko. man xam naa ni si moment yi ñu toll si ñi gën a am li leen gën a metti Ousmane Sonko xalifa euh, Sall en fait partie. parce que ñoom ñaar seq nañu loolu ci àdduna te du mbirum xaalis mais euh, Pape dafa nekk koo xam ne il est humain. mais bi nga demee yan kàddu la la dénk parce que nit ñaa ngi naan mhm. avant muy divulguer yi lépp xibaar moom si boppam xamoon na ni lu ni mel bés bu ko fësalee rek yoon dina dal ci kawam donc lu ni mel dëggal na ko bi ngeen gisantee waa wala déet avec le recul ndax ndax mi ngi koy réccu wala lan wala ndax situation bi affaiblir na ko non Pape naa ni remords ni regret les deux amul remords amul regret regret mooy li mu def si c'était à refaire il va le refaire et il fa incha il reviendra pour faire mieux remords parce que bu tëddee il a la conscience tranquille beneen mbir bi mooy euh, il ne demande rien aucun privilège bi ñu koy génnee fii di ko yóbbu moom dafa yaakaaroon Kédougou lañ ko jëmee parce qu'il s'attend toujours au pire après on l'amène à à Sébikotane toujours transfert boobu grand ñu bëri jàpp ni est-ce que transfert bu jaroon na ko pourquoi ñu jëlee ko fi mu nekk yóbbu ko ba ko Bikotaan. Euh, parce que loolu administration pénitentiaire ñoom ñooy xool par rapport ak seen capacité d'accueil ak yooyu loolu ñoom seen cuisine interne la et vraiment on les remercie on remercie l'administration pénitentiaire parce que bunduxataaluñ ko ñàkk luñ ko fayda toroxaluñ ko au contraire il lui montre que tu es un citoyen normal moom mu leen di wax ni ñaanuma dara. demandé wu ma privilège ni ñu ngeen di traité ñëpp traité ma comme loolu bu fi nit ñëw di ma seet ñu naan que non parce que c'est Pape Alé donc euh, bu mu am permis non da ngay am permis comme ñëpp jour visite mardi jeudi nga ñëw seet ko euh, temps bi mu lay consacrer nga def ko au parloir comme tout le monde nga pare dem sa yoon franchement il demande absolument rien à ce niveau il se dit que lépp dafa war a suivre le cours normal man dama ne que yaa ma gën parce que man bu ma xoolee fi mu jaar ak le candidat qui a terrassé Abdoulaye Wade en 2012 bu fekkoon man dama fa ak kooku dinaa ko mere mais moom il te dit non il ne faut pas attendre d'un homme politique mu lay delloo l'ascenseur journaliste bu fi xaar si homme politique mu lay delloo ascenseur da ngay nax sa bopp fais ce que tu as à en tant que journaliste moom bu xasee ba nekk au pouvoir beneen visage ngay gis. mais soutien bi nga xamante ni frère am yëpp ñu ngi ko ñu ngi ñu ngi ñu ngi ko euh, combat bi nga xam ne ñu ngi ko porté pour sa libération tey jii moom naka la ko gisee ba mu ko déggee. no xam nga xam nga daf si am loo xam ni. te yaa ngi naan léegi lu am solo ñaanul dara mais dégg nañu ay journalistes yoo xam ne ñu ngi ñaan clémence auprès quand ki ma si ki ma si mujj waxal euh, tey suba si Ibrahima Lissa Faye parce que Ibrahima sa Faye ak Khaliloula Abiboula Ndiaye Abiboula Fall plutôt ñoom ak Pape Alé ñoom ñoo créé woon. la convention des jeunes reporters. Mm-hmm. ak la convention. am na journaliste yu bari yu xam ni seen bourse d' étude ñoom ñoo ko lijjanti defal leen ko gratuitement te ñoom bi ñuy jàng dañ demoon alors euh, quand je dis que Pape ne demande rien mais il ce qui se passe. il sait que tous durant tout le week-end à Paris les gens ont manifesté pour lui. Mm-hmm. il sait que durant tout le week devant les studios de CNN aux États-Unis les gens ont manifesté pour lui. mais mais xam nga loolu. Mm-hmm. li ñuy wax la reconnaissance des pères dafa am doole tey lan moo doon metti mooy mu dugg ci kaso ba pare ñëpp toog ni il le mérite mais man je me dis. donte ne am na ñu koy wax nag. waaw non xam nga. Euh, mais nañu am fulaak fayda ak fit bi pap am ak courage bi ñu taxaw ci plateau yi ni pap le mérite man bëgguma ñu koy wax en privé si quelqu'un estime que pap mérite d'être en prison qu'il le dise ouvertement damay di wax ni. Euh, Pape dafa am benn défaut c'est que boo ko defalee lu baax dana la fay ba nga ruus. Mhm. ni ko ëpp na boo ko defee lu bon wala nga waxal ka ka balaa muy dee ci kaw suuf dana la fay ba nga xam ni que yow mii ki nga ko daj ki nga ki nga ki nga ko seqaloon boo ko mënee def benn mu def la fukk. ça moom il faut même pas que nit ñi di maintenant que chacun assume ses responsabilités ñun du ñu géwalu Pape c'est notre frère on le soutient. dans la mesure du possible selon li nga xam ne moom la ñu yoon may parce que bëgguñu mu toog foofu bëgguñu ñu sacrifier que dañu bëgg mu génn ki reprendre sa vie normal dem di ànd ak doomam bu ko mënee kasagal kasag bu ko mënee wooyal wooyal ko bu ko mënee dem defi leneen seeti ses amis mu dem def ko normalement pour ñun si euh, loolu rek la ñu toll même euh, l'histoire de l'argent mobilisé en trois jours les gens ont mu collecter plus de cinq millions de francs il dit il moom ñaanul kenn dara ko waxee mun la grand fi ma nekk maa ngi sama jàmm je suis bien traité euh, je découvre de nouvelles têtes. je découvre de nouvelles personnes mais ci loolu moo tax may insisté waat ci sama laaj. bu bu déggee ñi nga xam ñi ngi ñi ngi ñaan président Macky Sall pour mu bàyyi ko parce que président Macky Sall moo waxoon euh, quand même ci benn chaîne étrangère euh, ni si nit ñëw suma juumul ni moom ci magistère am te jóguñu fi journaliste te loolu du mës a am donc ñëpp jàppee ko en quelque sorte xaw mu xaw a nekk wax waxeet. Euh, Penda ma wax la dara part bu doon ñaan xam nga fan lay ñaane ci bureau juge bi parce que am na ñu ñëw di def médiation il a refusé mu ne moom bëggul ko defal médiation bëggul nañu bàyyi yëpp mu dox il est trop fier pour ça maintenant bu nit ñi jógee di ko ñaanal ak yooyu seen liberté la. Mm-hmm. mais moom ñaanul encore une fois parce que. ku mu ci mënti doon ca ñañu war a ñaan Pape am na sa numéro mën na wax ak yow mais il préfère parce que xam nga dafa am leen loo xam ni pour Pape c'est plus fondamental que tout le jour où il va sortir de prison war a ñëw toogaat dakaar matin jàkkaarloo ak caméra mu war a wax foofu Pape bu fa perdre une once de crédibilité du ko pardonner boppam Pape Thiadola et il savait moo tax. boo jëlee portable Pape ceux qui ont voulu espionner exploiter son portable bi ñu tijjee gis nañ ni que ni kii ba mu fàggoo yàgg na parce que amul dara loo fu mën a fekk hmm. parce que sur l'international jëloon na toutes les mesures de sécurité pour que son portable ne soit pas épié ça veut dire que depuis longtemps xamoon na ni am na lenn lu ñuy tramer contre moom maintenant comme j'ai dit euh, il va se reposer il va écrire parce qu'il n'avait plus le temps pour ça il va regarder autour de lui tout ce qui se passe maintenant nag dafa am ñoo xam ni pay tey problème bi si ñi mu ëpp du si pap si ñenn ñi nga xam ne que ni pap sekkoon na ak ñoom àdduna te delloo wuñ ko njukkal bi lo foofu la mbir bi di metti surtout ci loolu mu ah. bëri ñi nga xamante ni ñenn ñi ngi acharné wu euh, ci ku mel ni Abdoulatif Coulibaly a rappelé que ni journaliste la woon bu nga xamante déclaré ne nekkatul journaliste dem nekk ji way politique ci watu président Macky Sall ñu bëri jàpp ni quand même pour avoir euh, servi quand même euh, ce métier waroon na ko apporter son soutien surtout ba mu yëgee ni peut-être ñi ngi waaj dara ci kaw Pape Alé Niang da nga partagé avis ñenn ñooñu. bon euh, ku si nekk ak li nga seq ak moom man latif bi ma xam. bu doon intervenir en faveur de Pape du ko wax mën na toog le président Macky Sall mu wax ak moom c'est possible parce que nag seq na loolu ak pap Alé ñoom ñaar boo leen gisee c'est comme des copains El Hadj Kassé pour man el rapport El Hadj Kassé ak Pape moo gën a fort rapport El euh, Pape ak euh, Latif mais da nga leen di comprendre aussi Latif a eu quand même la grandeur de dire l'honnêteté ah. de dire je ne suis plus journaliste j'ai déchiré ma carte de presse je défends un camp je fais de la com. Mm-hmm. ñu nangul ko ko aussi. maintenant est-ce que te Latif bés bu doon jóg dem di seeti Pape en prison du ko wax kenn aussi man gëm naa ni ces ces ces grands là ils portent Pape dans leur cœur maintenant ñoom ils ne sont pas Babacar Touré jëm si yàlla Babacar Touré bu fi nekkoon Pape Alé waxuma du dugg kaso de mais du yombe nii. Aujourd'hui, euh, Pape, il a porté des combats pour certaines personnes. Mais ces gens-là, tey lan la ñu def ñu ngi toog dans leur coin toog jàpp seen ñaamur xëy na ñu ngi def des médiation on ne sait pas parce que li ñuy wax la diplomatie ne se fait pas dans la rue aussi loolu am na parce que am na ñoom ñoo xam ñu ngi waxtaan ak ñoom euh, ma gëm ni aussi euh, ba fu mu mën ci teere yàlla rek mooy mujj. Mm. xam nga sànq dama ne la c'est bien que Pape soit en prison dina ko permettre mu xoolaat yu bare. Hmm. dina ko permettre mu corriger waat ñu bare. dina ko permettre mu seetaat ses rapports avec certaines personnes mais Pape était fatigué il va se reposer c'est vrai qu'il aurait pu se reposer ailleurs si situation yu gën a neex et tout mais euh, en sortant on verra un homme beaucoup plus fort moi celui que j'ai vu ce Pape la j'ai l'impression que tey la gën a taxaw. mais que ce soit Corrède Saint-Pix am na ñu nga xamante ne également ñu ngi leen joxoñ baaraamu tuuma ni ay naafeq lañ pourquoi parce que euh, mooy presque divisée bi nga xam ne dañ ko nemmeeku temps yi ñu ne euh, ñenn souvent duñ leen gis ci yenn combat yi mais euh, l'affaire Pape Alé ñi ngi porté combat bi et pourtant bi Pape Alé doon def ay live am di dérivé quand même recadré wuñ ko pourquoi recadré wuñ ko bàyyi tey ji ba ñu jàpp ko ñu bëgg wax ni amuñu droit jàpp ko parce que loolu entrave à la liberté de la presse qui dans cette presse osait appeler pap pour lui dire li ngay def separ pas du journalisme ñoom mënuñu ko gënuñu ko aay gënuñu ko jàng dañu waxante dëgg rek mais Pape quand tout le monde courait pour aller faire les directs de Sonko mais Dakar Matin ne faisait pas les lives de Sonko musulam bu ñu waxante dëgg rek loolu musulam presse bi ñi koy diriger ñi ñëpp kenn ku si nekk tu as reçu Sonko ou tu t'es battu pour envoyer une équipe chez Sonko Pape n'envoyait pas d'équipe chez Sonko. ah peut-être parce que ni saa ko bëggee gis ko et ñoom ñaar peut am na sax ñeneen ñuy wax ni Dakar matin Sonko moo ko jox. non xam nga bu fekkee chaîne bi diw moo ko jox diw bi rek diw boobu moo ko moom tu as pas mal de chaînes dans ce pays yoo xam ne que des hommes politiques ñoo ko moom à l'origine tu as au moins de télévision yoo xam ne fii. ñi moomoon fréquence bi à l'origine du ñu koy diriger est-ce que dafa tax ñooñu moom ko. ah mais am na ñoom ñaari rapport. ah am nañu ay rapport mais nit ku nekk da ngay am xam nga le le journal d'investigation le journalisme politique. moo tax le le doyen Mamadou Camara j'aimais bien quand il disait les hommes politiques il faut les ren il faut les rencontrer il ne faut pas les fréquenter mais boo demee ba nekk nit Ousmane Sonko toog na fi benn moment mais pour se faire inviter c'était bu demee ba gis ni que ni am na dara bëgg na si jàppale Pape mais bu mu ko def xamu jàppale ko mais Ousmane Sonko ne peut pas dicter à Pape Alé Niang sa ligne de conduite mënul nekk Pape am na fula boobu maintenant nañ na nit wax ni ma Pape jour bii taxaw na fii def mais Pape lan la defalu Idrissa Pape lan la defalu Macky Sall li mu defal Sonko benn trentaine sam te du Macky Sall la ko njëkk defal est-ce que dafa tax ñu ne que ni Macky Sall moo ko kii te pourtant à l'époque de radio Sene Info Bissaka Faye doon diriger. c'est-à-dire li foofu mooy euh, Pape Ali bi muy def live di brandir quand même un dossier estampillé euh, confidentiel. Mhm. peut-être ñenn ñi ñi nga xamante ni njiitalu Synpics sama xarit Bamba Kassé Cap ak suñu grand euh, Thior. donc ñu ne ñu ni mel peut-être waroon nañ ko war a mën a recadrer à temps pourquoi ñu bàyyi. ba yoon parce que pour ñoom loolu faute la woon quoi. le fait que Pape jël benn benn benn papier brandir que ni loolu c'est c'est une faute quoi. estampillé confidentiel. waaw ah, mais attends là xam nga loo xam ni c'est confidentiel il faut que ñu xool confidentialité boobu kan moo trahir mbir mi ba document bi génn foofu mais pas du dem di sàcc document quand même nañu waxante dëgg pend fii bu fekkee nit def na fi journalisme dix ans te musul am un document confidentiel entre ses mains na bàyyi métier boobu doon dem jaayi pomme de terre journaliste bu fi mënti nekk un jour tu eu entre tes mains un document confidentiel téyel ko sa bopp di seet nag noo koy exploité parfois nga ragal sax dem jël kenn ku la ëpp fit nga jox ko ko te pap fit boobu am na ko engagement boobu am na ko. mais ànd nga ci gis-gisu ñenn ñi jàpp ni tamit journaliste yi ñenn ñi bu ñu demee peut-être ba gën a jege ooy politique yi wala ba hmm. sentir def politique comme ni ko suñu grand Abdoulatif Coulibaly defee ñëpp war nañ topp boobu boobule exemple démissionné bañ a nekkati ci corporation bi pour pour pour être libre. Ouais, oh, mais attends, Latif Koulibaly, est-ce qu'il avait besoin de démissionner Latif, il a plafonné. Il a fait Sud Quotidien, il est devenu directeur général de Sud FM. bu demee ba pare si loolu commencé bind ay livre am moo waxante dëgg livre Abdou Latif Coulibaly yi pas mal de problème de sud bi ñu fa nekkee mais bi livre bi génnee la moi j'étais chef de station à Saint-Louis moom mu namee woon foofu mais bi livre bi génnee ñun ñu koy jaay mais Wade a bloqué nos comptes suñu famille yëpp dañ si pâtir. mais même reproche boobu ko ki nga xam mooy Ahmed Aïdara. defal nànk rek. li bi mu génnee livre am si Wade le le PDS a a verrouillé les ñu commencé di xoox di fayu ay le 26 du du mois suivant mais dañ on s' est dit grand la c' est un confrère dañ koy jàppale parce que li mu def on estimait que c' était bien léegi dem na ba président Macky Sall nommé que ministre mais c' normal ki dise qu'il n'est plus journaliste. Alioune Fall n'est plus journaliste euh, euh, Abou Abel Thiam n'est plus journaliste Ousmane Thiongane n'est plus journaliste Souleymane Jules Diop n'est plus journaliste dama ni a choisi la voie la plus difficile bi Souleymane Jules Diop nekkee Canada di def ses live tous les mardis sur Seneweb mais bi loolu di am Pape ñu ngoon fii di mën moom la combat sur place en face de Abdoulaye Wade Abdoulaye bëgg ko woon sax gis moom du jaar sur Abdoulaye Wade moom sama maam rek la daa woon di wax mais bi ñu paree président indi ko fii après il l'a Pourquoi Pape n'a pas été nommé Mais parce que Pape n'a pas voulu continuer ak politique il a préféré rester journaliste loolu au moins nañ ko ko nangul maintenant nag kenn ku si nekk tu as ton avis Pape ce qu'il a fait c'est pas bien Pape li mu def jaarul yoon journalisme am dafa ëppal li wag li d'accord que chacun défende ses positions mais que la personne défendre ko de façon ouverte boo bëggulee Pape Alé woon que ni bëgguma la d' accord lu ma si may def bind ko carrément ni que d' lu ma si may mais man aujourd'hui ceux qui portent le combat ses amis euh, ses relations ses confrères fàtte lépp pour moom je trouve que c' est quelque chose de bien parce que dans cette presse là ku fi toog ni que ni ce que Pape a fait n'est pas bien dégg naa le ministre euh, de la communication Moussa Bokar Thiam ni affaire bi jeexagul ñi génne document wu 45 milliards bi ils seront poursuivis c' est que dans fii ak 2024 tous les journalistes seront poursuivis wala bokk ku fi am document da ngay dem ba Mauritanie nga toog bind ko yónnee ko Sénégal. si loolu la ñu faire pour protéger les journalistes et notre et corporation. parce que euh, journalisme c'est un combat c'est juste un combat état bi du la may dara nouveau code de la presse bi kenn du ko signé gratuitement gracieusement non c'est un combat. ñoom Mademba ñoom Mademba Ndiaye Mademba Ndiaye As ñoo fi nekkoon ñoom jëm si yàlla Alpha Abdallah Sall ñoo fi nekkoon nekk au niveau du Simpix di mener la combat bi ñu demee ba mu yàgg ñoom Ibrahima laa njaay ñëw ñoom Diatou Cissé ñëw nekkoon ci mbir bi ñoom Pape bi ñu egsee vers quatre vingt dix huit quatre vingt dix neuf deux mille deux mille un ils ont dit bon grand yi kat ñi ngiy def mais ñoom seen bos dafa dafa dafa tooy quoi. bàyyi ñun ñu créer l'école de la convention de euh, la convention des jeunes reporters pour prendre en charge les préoccupations des jeunes reporters parce que da ngay nekk tey reporter si benn organe tu viens à pen de terminer amuloo contrat amuloo assurance amuloo dara heure bu ko neexee patron bi dàq la bu ko neexee mu fay la bu ko neexee du la fay ñenn ñi ñoom seen dund yëpp si ñibbi junne lañ ko teg ak ñibbi ñaari junne dem reportage ñu jox leen per diem mais ñoom biñ ñëwee ils ont dit ça il faut l'enlever que lii war a mën a dañ ñenn ñi xam ne ils sont par effraction dans le métier def nañ fi cinq ans dix ans nañ leen wutal bourse à l'époque Diop ISEC vraiment il a joué un rôle extraordinaire gars yi di may bourse nit ñi dem def un an jël seen diplôme ñëw toog mais loolu nañ leen ko nangul maintenant pur le reste nag on peut ne pas aimer Pape Alé et les gens ne sont pas tenus aussi mais qu'il le laisse mener sa vie tranquillement moi tout ce que demande mooy que fële mu nekk yàlla génnee ko fa si nu mu gën a gaawee ñu woo ko déglu ko dans le fond pare dem juger que soit ñu mettre ko en liberté provisoire soit ñu tëj ko avec sursis soit ñu tëj ko mu purger que mu jeex et franchement on remercie énormément ces ces ces ces avocats parce que amul ay avocats yoo xam ni euh, ay caaxaankat la ñu dañuy jël dossier di ko mm. je sais que mm, Bamba Cissé est très pointilleux je sais que maître ku mel ne depuis l' arrestation de de Pape Alé chaque jour ma ngay dem di jëli code de la presse tout ce qui touche au journalisme comme ni ko defoon ak Imam Imam Ndaw il a acheté plus d' une vingtaine de bouquins pour lire pour comprendre pour que bés bu taxawee la barre mu mën défendre son client. Mm. sans en contrepartie demander un franc à Pape Alé. Mm. parce que pour Moussa Sarr c' un combat citoyen à mener et il est en de le mener nañ jàpp ni que ni nag Pape doomu jàmbur mhm, voilà ah. à rappeler que vous suivez toujours votre émission à 13 minutes de vérité ñu am mbégte di fi recevoir suñu grand Ben Makhtar Diop analyste politique taskatu xabaar euh, sur l' affaire Pape Alé Niang mais autre question d' actualité laata loolu nag euh, man maa ngi joindre ci cause journaliste yëpp. Euh, tey sàkku tamit suñu grand ñu bàyyi ko ci nu parce que dama koy koy témoigné li nga wax dëgg la euh, Pape boo ko gisee man bi ma koy njëkk gis boobu maa ngi nekk groupe Futurs Médias mais day mel ni comme dala xam bu yàgg mm-hmm. alors que c'était notre première rencontre euh, ñu échanger contact bokk également groupe dirigé par Samba Biagi grand yaa ngi ci muy après mm-hmm. donc par moment mu mu nekk nit ku nga xamante nit kese la donc ñu koy ñaanal quand mu génn ci nu mu gën a gaawee ci foofu mu nekk mm-hmm. Euh, man si on m'a dit que ni lii c'était pas prémédité du ma gëm Pape semaine bi ñu koy arrêté la semaine d'avant carte de presse nationale la doon toppatoo xam pour lan. Mm-hmm. c'était pour aller assister au procès de du 28 septembre en Guinée moom si yooyu la nekkoon mais bi se disait xëy na arrestation bi d'ici fin décembre la mais xamoon na ni. y a quelque chose qui se tramait. Qui se tramait. Pour dire que ni il est dans son journalisme quoi. Mm-hmm. moom il est dans ses certitudes. Mm-hmm. il se bat et puis pour le reste euh, vraiment bu fekkee am na ñu mu tooñ man damay jéggalu si ci ci ci ci baatam mais gëm naa ni que ni ce qu'il a fait euh, quand du journalisme de feu vert les ciseaux ne sont pas dans ta tête. Mm. c'est ce qu'il fallait faire.